jërë ngeen jëf yéen ñi faral di seetaan Yeumbeul Vision TV màggal 2023 jàll na waaye du tee ñu def ci analyse yu am am solo li jot a xew gis nañ ne Tange euh, Tandian avant màggal après màggal coow li bëri na ci moom ci musiba yi xamante ne yàq na ko Serigne Habib si dina ñëw ci ay mbiram dinañ ñëw ci Jean Paul Dalméda mi xamante ne génn àdduna ak Fatou Kiné ak yan anam lañ génn àdduna Euh, balaa ngi continuer dañuy wax képp koo xam ne abonné ko ci chaîne bi mën nga abonné bés cloche notification te ngay partagé euh, dina ñëw ci màggalu euh, bi ci côté Serigne Mountakha Mbacké ak marin Faye Sall ak Macky Sall ñu xam te ne am na lu jotoon xew waaye magal bi moo taxoon mënuñ ci woon xuusal dañ koy commencé ci temps tànjaam yi xamante ni ginnaaw bi Serigne Habib si Abdou Aziz Dabakh génn def benn waxtaan boo xamante ne moom la concerné mais waxu ko ci turu tariqa bi mu wax wax joo xamante ni bëree bëri ànd nañ ci ñu bëree bëri na ci waaye la mu wax moom la concerné parce que moom ba muy wax nee na waxuma ci benn turu xalifa waxuma ci kenn ku dul sama turu bopp bi loolu amee nag génn wax na ko naqari wax na ne moom mi ngi ànd ak Ousmane Sonko bëri lu mu leeral ci Ousmane Sonko loo xamante ne yu rafet la yu baax la waaye dafa mel ni Ousmane Sonko dafa am ñoo xam dañ goo xamante ni mooy weer di fees ba képp koo xamante ne xalifa nga boo génnee wax nan dal sa kaw xoolul yow yaay kan xool ci ban famille nga bokk xamul ban kilifa nga ñu gis ne Tange Tandian moom génn na te ku ne xam na ne Tange Tandian koo xam turam méngoowul ak turu Sëriñ Habib Sy parce que gis na ne Tange Tandian coow bu amee saa bu ñu koy tudd ñu koy tudd ci mbirum góor jigéen donte ñun sax xamaloon ko loolu waaye gis na ne Tange Tandian génn na yàq na Sëriñ Habib Sy musiba boo xamante nii ñu bëree bëri ñaaw yaa ngi nag euh, bàyyi wun benn yoon nee nan temps temps yaalam def na ko ci parce que duñ bàyyi benn yoon xale bu ndaw naan lay këlkële suñu kilifa di ko wax ay wax yoo xamante ni moom la muy wax ñoru la la muy wax du pour yow mais la muy wax pour état la la muy wax nekkul yow mi xamante ni ñu lay tuumaal mbirum góor jigéen yow la wala du yow kenn xamul waaye ñu la koy tuumaal euh, kon ndax yow euh, seen Habib si war naa wax jën yow nga koy weddi loolu moo naqari tiijaan yi moo tax jóg nañ Tange Tandian bu amul sens dana dem fële fu mbax na ko Jean Paul Dalméda mu nekk koo xamante ni génn àdduna waaye mbébétam mi ngi fi ba tey ku xam sa Jean Paul Dalméda danga ko ba seen bëñam ngay gis mu nekkoon ci ay série yu wuute yoo xamante ni mi ngi fi doon incarné ay rôle yu wuute mu nekk koo xam ne ñu bay xamoon naan ko ci fulla fayda ak bëg nit foog naan seen nga gis ay bañam waaye tey jii nii yàlla moom na ko ci ab accident la jaar nag accident bu méttee métti ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla yërëm ñu doxantu ba TFM TFM nekk groupe boo xamante ni ñu bëree bëri parfois dañ leen di joxoñ ay baaraamu tuuma ci ay tuuma yoo xamante ni kenn mënul comprendre lan moo ko waral tey bu coow amee suba coow am ñu bëree bëri njort ne TFM dafa am liggéeyante waaye loolu yàlla rek moo xam lu gis ne ki ñu wax Fatou ki ne dem moom génn àdduna ci génn àdduna boo xamante ne bett na ñu bëree bëree bëri ñu bëri naan dafa naan feebarul coow li bëri na lu ci mën di am mooy génn àdduna ñu bari nag ñu ngi joxoon tuuma euh, fële ñuy wax TFM naan liggéeyante dafa am waaye loolu yàlla rek moo xam ñun duñ ci sori dëgg la wala nekkul dëgg ñun xamuñu waaye gis nañ fi coowul ku ci ak keneen ak keneen euh, lu ci mën di am mooy euh, faatu kene dem dañ koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko ak tey Ousmane Sonko miñ ci kaso bi Ousmane Sonko nekk koo xamante ñu bëri xam nañ ko bàyyi na ko xel bu baax a baax manqué na umma islamique bi yëpp ci magal bi xamante moo nekk magal 2023 mu nekk loo xamante ni benn patriote du ko mas a fàtte benn yoon ndax Ousmane Sonko ñu bëri jàpp nañ ne kaso nekkul palaasam lan moo tax mu nekk fa xamagun lan la dëgg-dëgg lan moo tax nu jàpp ko ba tey jii leeragul ci ay nopp ci ab téléphone lan wax ne moo tax ñu jàpp ko waaye ba tey jii ñu bëri jàpp nañ ne ñu ngi ci dund ak diggante dund ak dee parce que gis nañ ne ku nanguwul lekk nanguwuloo naan ak yeneen ak yeneen yoo xam nanguwuloo koo def donte sax ñu ngi naan arrêté na grève de la faim waaye lu ci mën di am mooy Ousmane Sonko mi ngi ci difficulté Ousmane Sonko nekkul ci jàmm parce que kasu rek xañ na la jàmm kon Ousmane Sonko dañ koy ñaanal yàlla yàlla ko fi yàlla euh, Mariam Faye Sall ginnaaw rek ban koy joxoñ ay baaraam naan Mariam fay Sall xel mi mat na wala xel mi matul lu ci man di am def na ay jëf yoo xamante ni képp koo xamante ni ko mat nga waruloo koo def gis nañ ne Mariam Faye Sall ba mu toogee ci wetu Serigne Mountakha Mbacké maa ngay def ay signes yoo xamante ni kenn mënul xam ndax dafa perte mémoire wala lan mooy problème bi wala dafa am ku muy waxal wala ay jinne la ak lu mu mën di am daal mooy Serigne Mountakha Mbacké ba mu toogee di waxtaan ak askan bi gis nañ ne Marème Faye Sall ma ngi fay def signe yoo xamante ni ñu ngi ko xamoon ci ay xale lu mel ni kuy waxtu wala kuy waxtaan wala leneen ak leneen gis nañ sax kii jëkkëram mu nekk Macky Sall def na benn si boo xamante ni ñu bëree bëri jàpp nañ ne dafay doyadal kilifa gi waaye ñun jàpp nañ ne Macky Sall la mu def dafa tombe rek waaye Marème Faye Sall la muy def daf ko bamtu bamtuwaat ko moo jaaxal ñu bëree bëri ba xam foofu mooy place waaw wala déet xamaguñ si dara waaye lu ci mën di am mooy mu dem kër docteur baax na ci moom lool su dee dafa feebar am na fële ca Touba ginnaaw rek Serigne Bass Abdou Khadir Antoine Diome ba mu toogee wax ji bëri na lool ginaaw bi Antoine Diome taxawee wax ne moom lépp loo xamante ne waroon na leen ci Touba def nañ ko fa quarante six milliards def naa ko ci Touba lépp loo xam ne mbirum ndox la wala mbirum coono jóge na fa mel ni yàlla daf leen a weddi ba mu sat wi ci Serigne Bass Abdou Khadir dëggal na wax ja nee na Antoine Diome la mu wax dëgg la maanaam dëggal na ko ci ay façon yu wuute waaye lu ci mën di am mooy yàlla la muy def daf koy def muy leer kenn du ko amee guddi ji dafa jot rek wala sax ban xëy suba yàlla si eh, taw ndox mu bëree bëri moo xamante ni ku ne mën ngaa sëy ci biir ndox ma mel ni yàlla da doon xaar ñu wax ba pare mu teggi seen wax eh, teg fële mu nekk loo xamante ni askan tubaab yëpp gis nañ ko dund nañ ko ci magal 2023 bi ndox mu bëri moo xamante ni yaakaar naa suñu fa defoon 2 milliards rek waroon na ko mën a saafara waaye gis nañ ne 46 milliards def nañ ko ci ndox ma dara gisuñu ko donte sax taxaw nan ne lépp loo xam te mbirum ndox la jóge na fa waaye loolu amul benn yoon